ak commune est di maître Ousmane Diagne euh, fekk suñ ci ba pare na chaque dimanche dama bëgg ngeen ànd kook sama naataango maire yi nga xamante ni ñoo nekk biir Thiès donc loolu duñ def lu dul kontaan ci euh, tey waa Zik Social en partenariat ak waa euh, mairie bu Thiès est te maître Ousmane Diagne jiite ko ñooy def ndogu fi nga xamante ni mooy hôpital régional donc nit ñi commencé nañ ñëw nit ñaa ngi commencé ñëw nit ñaa ngi ci li nga xamante ni mooy préparation ndog yi donc euh, du ñàkk euh, xam naa ni ci kanam tuuti ñu jël euh, quelques waa waxtaan ak ñoom waaye daal xam leen ni ndogu dimanche 10 10 avril 2022 bi nga xamante ni moom la waa Zik Social di def ànd ceeg en partenariat ak waa mairie Thiès Est Euh, donc te maître Ousmane Diagne jiite ko ñoom ñooy mooy ndogu fële nga xamante ni mooy hôpital régional donc ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni rek dégg nga suñu kàddu gi euh, mën ñoo fekk si fi nga xamante ni mooy CREPS bu Thiès euh, bu ko defee rek ñu àndandoo bokk nday bokk baay préparé ndogu yi macha allah suñu jigéen ñaa ngi nële tey xool gis ngeen ni naaj bi tàngee te teewul ñu ngi ci naaj bi ndeysaan di waajal li nga xamante ni mooy ndogu yi gis nga sama baay faal yi ñi ngi ci café gi ñii ñi ngi ci mburu mi ah ngi ci préparation yi donc lépp rek Euh, doomu aadama bi nga xamante ni euh, woor na ba dog jot te loxoom jotul ginnaam wala ki nga xamante ni euh, dog da fekk ci mbedd mi wala ki nga xamante ni day voyager fu sori dog fekk ko biir Thiès rek mu mën a profité daal di dog li nga xamante ni mooy kooram. Euh, ndogu ndogu lu baax laataa muy continuer euh, donc loolu rek lañ ci jublu euh, boobu ba léegi aussi ñu ngi koy def yàlla sunu borom di ñu dimbali di ñu jàppale di ñu kattanal aussi ba ndogu lu ñu def rek daanaka beneen bii ñëw mooy dàkk chaque année aussi année bu nu jógee rek daanaka beneen bi ci topp la ñuy seetlu ni mooy dàkk loolu nag moom mbiru sunu borom la Zik FM Thiès ak ànd ceeg ñi nga xamante ni mooy waa Zik Social bëgguñu lu dul doomu aadama bi nga xamante ni. loxoom dafa jotul ginnaawam mu nekk ci ay conditions yu baax bu ndog jotee mu ndog comme ñëpp ni koy defee eh, naan ndox mu seddam naan juyam eh, lekk ba suur naan ba màndi eh, loolu daal lañ ci jublu aca mi ngi noonu tey xam naa ni euh, waxtu wi tembe euh, gaa yaa ngi ci kawam Assane Gueye ak équipe bi nga xamante ni moom la àndal ku ci mel ni El Hadj Ndiaye euh, ñoom Serigne Babacar ak yooyu ñoom waxtu wi tembe ñi ngi jëli li nga xamante ni mooy mburu mi ci boulangerie bi nga xamante ni mooy Abdou Aziz Abdou Aziz de passage ñu koy jaajaful bu baax moomit jàpp na ci prix bi bu baax a baax waaye daaxa sumaare aussi Ousseyn daaxa démb maa ngi koy dégg ndeysaan mu wax na wax ju rafet ci yow waaye ndamit dafa def jàpp na ci bu baax a baax a baax ndax euh, am na lu lim bu takk boo xamante ni commandé nañ leen ko ci moom mburu waaye daal jàpp na ci bu baax a baax moom Daaxa Soumaré moom it euh, faa ñu nuyu ko faa ñu saluer ko donc euh, ci initiative bi nga xamante ni mi ngi koy def saa su heure bu Zik FM soxlaa rek mu ñëw ànd ak ñoom jàppale leen loolu yàlla rek moo ko mën tey acca mi ngi noonu mbokk mi et kii waa kii di suñu dawal ko trois roues bi <laughs> ndeysaan moom nag. ndeysaan heure bu Zik effet di def euh, heure bu Zik social di def li nga xamante ni mooy caravane daanaka day bàyyi yitteem yëpp moom tricycle la yor dina ñëw léegi ci tur bi day bàyyi yitteem yëpp ànd ak waa Zik social essence sax du nangu ko ko solal euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. baa yaa ngi ci jàmm jegeel micro bi tuuti jegeel tuuti ndax yow liggéey bu am solo ngay liggéey bi Zik social euh, fàttali ñu tur bi rek rawaan sëñ rawaan ñu ngi lay ziar bu baax a baax. bëri sax. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw a wér nag. alhamdulilah yàlla sant yàgg. Eh, rawaan tey noo gisee Zik Social eh, ci ni nga xamante ni moom lay doxe ba tax na caravane sax buñ ko amee des fois laataa ñu dugg si ci koor gi caravane yi nga xamante ni daan nañ ko am ñu gis ni da ngay yàq seete yëpp ñëw ànd ak waa Zik Social ci caravane yi eh, lan moo la poussé ba ngay ànd ak Zik Social ak yëg-yëg bi lan la. waaw waaw di rafetlu taxawaay Euh, parce que man doxuma ci ay daray caaxaan. Mm-hmm. waaw dama sama gis-gis nag mooy dama gis zik social. Mm-hmm. ñoom seen seen mbir yëpp daal. Mm-hmm. yàlla la. seen mbir yëpp yàlla la. ñoom lépp. waxal ci micro bi. lépp lépp loo xam ne rek. pour euh, pour dimbali doomu aadama la. ñoom dañ ciy dox. te en plus tamit moo waral man ma ñëw daal. di ci teg loxo. Mhm. waaw mënuñu daal nag ne dañuy jéem rek. Mhm. tey ñu nekk ci li nga xamante ni showru Ramadan di weeru koor tey ñu gis ni waa Zik Social euh, chaque dimanche ñu ngi séddale li nga xamante ay ndogu euh, di ko jox jaamu yàlla yi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw loolu ban jàngat nga ci def. waaw xanaa di rafetlu rek. Mhm. waaw di ko rafetlu parce que loolu moom yaakaar naa lu baax la. parce que yaakaar naa ni benn tibb ñam rek ku ko jox euh, doomu aadama loolu daal ay ay ay ngëneel yu bëri la. rawatina waa Social. xëy dagg seen yitte yëpp mhm. nekk fii soo ba léegi mhm. di defar loo xam ne ay berndeel lépp ngir ku nekk xam na ni koor daa metti mhm. waaw ku sañoon nag da war ba ngoor nga dogoo sa kër mais waa Zik Social dañoo bàyyi loolu lépp bàyyi seen kër ñëw di nekk ci tey doomu aadama yi kon loolu daal dañ koy rafetlu waaw parce que mi ngi noonu rawaan yow yàgg euh, sama goro yéen a kër waaw waaw Fatou kii sama goro la <laughs> sunu ma sama maman Fatou Mar moo kii ñoo bokk kër kii sama goro bu góor la <laughs> aja mi ngi noonu bugul bu dégluwaat bu dégluwaat kenn <laughs> ata mi ngi non di ko jaajëfal bu baax a baax a baax muy rawane bu zik social ata mi ngi nonu neena naa euh idéologie la ata philosophie la euh, zik social def ta yalla tax rek la donc euh, kenn ko xamanteni rek euh, bokku nga ak waa social idéologie bobu nga xamanteni mom lañuy doxé wala philosophie bobu nga xamanteni mom la waa zik social di doxé rek mën nga leena fekk ci waye kep ko xamanteni ni tamit philosophie def ta yalla tax bobu rek ando ci mën nga dem seeti len parce que ñun def ta yalla tax rek te xaaruñu ci dara loolu mooy sunu credo aca mi ngi noonu euh, ba tey ñi ngi desandi fi nga xamante ni mooy CDEPS bu Thiès euh, nee naa la tey ndog yi ki nga xamante ni mooy waa Zik Social dañ cee ànd ak partenaire bu bees muy wàcc mairie euh, Thiès S te le maire Ousmane Diagne jiite ko le yàgg a def ci social aussi parce que faaw ñu fatale ni eh, c'est pas la première fois le maire Ousmane Diagne eh, booba sax doonul maire booba maître Diagne lañ ko daan wax avocat bi ata mi ngi noonu booba booba booba la ñu commencé ànd ak ñun ci li nga xamante ni mooy eh, social bi daanaka chantier bu nu am rek heure bu ko yëgee wala heure bu ñu ko woowee ñun jumeaux yi fekk suñu ci. ba yàlla tey dogal mu toog ci li nga xamante ni mooy maire bi donc ñu woowaat ko mu ñëw fekk suñu ànd ak maire bi aussi donc loolu aussi c'est à saluer lu. lu ñu war a lu lu ñuy rafetlu la waaw waaw ki ñu may cinquante Miss Mboury waaw waaw kooku moom mënul ñàkk euh, bañ a dugg waaye waaw salaamaaleykum waaw ku baax maa ngi lay ziar euh, amuñu amuñu euh, allo waaw waaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ñu ngi am jàmm bu baax a baax baa yaa ngi am jàmm amin yaa rabbal alamin eh, ñu gis eh, sa taxawaay bu rafet bi nga xamante ni def nga ko eh, Zik Social nga may leen cinquante kilo pain loolu moom lu rafet la ci ku mel ni yow tamit c'est la première fois ñu xamante dafa mel ni bu ma juumul nga jàpp ci bu baax a baax a baax lan moo tax nga jàpp ci ban yëg-yëg nga am ba jàppale yi nga xamante ni mooy waa Zik Social. ate mu ngi noonu Sidaat yaa ko woowoon wala moo la woo. ate mi ngi noonu euh, xam naa ni dina ñëwaat léegi euh, mbokk mi daa dem waaye xam naa ni dina ñëwaat léegi ate mi ngi noonu euh, comme ni ñu koy waxee rek ndogu tey li nga xamante ni mooy waa Zik Social dañ ci ànd ak partenaire bu bees door la nag luy door la mais ñu ngi ci woo képp koo xamante ni rek bëgg nga ànd ak waa Zik Social ci ndog yi nga xamante ni ndogu de solidarité yi salaamaaleykum waaye ñu ngi lay siyaar bu baax a baax waaye ñu ngi am jàmm bu baax a baax alhamdulilah. Mhm. waaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax gis nañ euh, teraanga gi nga xamante ni defal nga ko waa Zik Social mhm. euh, ñu kontaan ci loolu aussi euh, bëgg a sekk yow aussi benn waxtaan bu ndaw rek ci geste bi nga xamante ni def nga ko ci fekk si waa Zik Social ci ndog yi nga xamante ni moom la ñuy def ànd ak ñoom ci ndog yi nga xamante ni moom la ñuy def yëkkati mburu mu bari aussi teg ko seen loxo ban yëg-yëg nga ci am. Mhm. waaw di kontaan rek. rafet nekk ay dëkkandoo mm-hmm. Mm-hmm. waaw lépp rafet suñu mm-hmm. diggante ak moom ñu ñu def ko yaay mu def ñu ay doom dëgg la kon te jii moom ci lu mu nekk rek bu ñu ko waxee ñun saa su nekk war nañoo yëgal su ak lépp lu ñu mën di am def ko ci waaw te def rek la waaw loolu daal moo tax ñu jëf waaye du leneen aca mi ngi noonu euh, fàttali ma li nga xamante ni mooy euh, boulangerie bi nu mu tudd ak fu mu nekkee boulangerie bi mooy boulangerie Serigne Moutala mi ngi nekk Jaxaaw route de base route de base Eh, képp koo xamante ni yéen mburu rek ngeen di defal wala da ngeen di defal ay gâteau ak yooyu. waaw dañuy mburu ak pâtisserie. ak pâtisserie. ata dégg donc képp koo xamante ni am nga xew-xew yoo xamante ni di nga soxla mburu wala wàllum pâtisserie eh, ci ban numéro la leen mën a jokkoo. 77. 77. 826. 826. 96. 96. 95. bamtuwaat ko. 77. 826. 826. 96. 96. 95. waaw. ati mi ngi noonu j'espère que yaag Zik Social yéenay ànd ndog yi ba mu jeex tàkk. Inshallah. allah incha allah jërëjëf. jërëjëf ati mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax euh, Eh, wane na yoon bi eh, moom wane na yoon bi wan na yoon bi képp kuy boulanger rek te nekk ci diwaanu Thiès war a ñëw ànd ak li nga xamante ni mooy waa Zik FM Thiès eh, ànd ak waa Zik Social ci ndogu de solidarité yi nga xamante ni moom def chaque dimanche ak mi ngi la chaque dimanche dimanche bu bu ba bari juróomi dimanche lay doon donc ñu ngi woo képp koo xamante ni rek boulangerie nga te nekk biir Thiès ñu ngi lay woo nga ñëw dooleel ñi nga xamante ni mooy Zik Social ànd ak waa Zik Social partenaire ba koor gi jeex bu ko rek à chaque fois Ela Euh, ñuy fàttali aussi bërëb bi à chaque fois aussi ñuy fàttaliku yu am solo yi nga xamante ni yéen a koy def donc service yi ngeen di def aussi euh, une fois ngeen nekk en partenariat ak Zik Social rek euh, ci ndog yi chaque dimanche incha allah rabi dañuy amal plateau spécial di mën a jàllale seen i produits di mën a jàllale aussi seen i activités ate donc ñi ngi woo partenaires yëpp képp koo xamante ne bëgg na cee jàpp na ñëw ubbil nañ ko suñuy bunt mën na woote boobu rek ngeen mën a jaaree boobule pour mën a xam euh, euh, nan ngeen di def ba nekk en collaboration ak ñi nga xamante ni mooy waa Zik Social te mi ngi noonu dama bëgg a woo nag kenn koo xamante ni daanaka royukaay la ci biir.